aw euh, bismillah bismillah alaykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Marietou fi ci savoir planétaire inshallah allah del yéene wat tey jii tay dañu fas defar beñ li ñuy gis ni suru de sucre la bëgg defar donc ndox la rek ak sucre mi ngi ni dama koy tek mu bax baxa baxa bax ba sucre bi sey ba mu dem ba affaire bi commencer di concentrer ba nek sirop ndax suñu beñ bi nak buñ paré dañ koy xoj ci suru de sucre bi lutax mu ñuul ni Euh, brown sugar bi laa jël wala sucre roux bi laa jël ku mu neex nga jël sucre bu la neex léegi ni ñuy def euh, tuuti ci sama orange zest bi lay sànni fii mu àndandoo incha allah su ko defee après sama limon bi ma xoos ci tuuti jël ci jus bi nal ko fii ba saf sap forox tollu ta neex parce que beñe bi euh, sucre bi ñu ci def dafa war forox merjo ba daan génnee fofu <laughs> merjo Diop allah voilà donc li ñu gis ni euh, one cup benn kopp meew la fi def mom la euh, baxal ni pas mu bax mais bon mu tang rek quoi voilà mom la fi tangal fi ñi ngi fi ak suñu bol ingrédients ñi ngi fi ak suñu ñaari nen mais nen bi benn bi nen entier la lepp ci biir benen bi jaune bi kessa la donc ben whole egg la ak benen bi euh, egg yok, muy jaune d'œuf bi kese fi ñi ngi fi ak suñu zeste orange gis ngeen ko li ñu gis ni ñu ngi fi ak suñu diw ñor voilà diw ñor bi mën nañ wax ne que ñetti kudd yu mag la ñetti kudd yu mag voilà léegi gis ngeen beñe bi gis ngeen semulina bi lañ ko fasiyene defaree mi ngi nii moom mooy euh, sumul bi mais tey euh, suñu ingrédients yi baa ngi nii dañ ciy jël ñaari këpp buñ ci jëlee ñaari kopp sumbul dal di ñëw ci farine normal bi farine bi ñuy beñé mi ngi ni euh, mom tam jël ci ñaari kopp gis ngeen ni sumbul bi xaar leen ma won leen wala gis ngeen sumbul bi ni muy def ni gis ngeen ko ni semulina la lélé da fay nekk bu maïs euh, wala kumu neex bu la neex rek nga jël mais bu sew bi ni lañu soxla momi dañuy ñëw yëkëti ci ñaari kopp jël benn pincée de sel légui fi suñu pat bi ñuy toyal inshallah duñu ci def euh, sucre parce que buñu ñu ne de sucre bi Euh, bu ñu paree moom la ñuy jël léegi nga maam jonju ci beñe bi mu xattaraayu ci biir bien bon ayo bismillah léegi nag ku am layu mën nga jël layu bi pour nga marqué beñe bi mais ñun gis ngeen passoire yi ñuy seggee ku ko am it mën nga ko jël ku ko amul dinañ leen wan it ku am fourchette naka nga ko mën a defee ak fourchette tam ayo bismillah aywa gis ngeen ni suñu bool bi fi ñuy mélangé ñamatos yi suñu semul semolina mi ngi nii ñaari kopp lañ ci def gis ngeen bi farine normale la benn kopp ngi nii beneen kopp bi moo jiitu muy ñaari kopp yi ñu fas yéene ci wis tuuti xorom rek voilà tuuti rek c'est bon jël benn sachet levure alsacienne bi daal di ko ci sànni mi ngi nii levure pâtissière la euh, wicci wiccal ko ci comme ça yëf yi gën a mën a jàpp aywa mu ngoog jël benn levure bi ne ko ci tuy mu ngoog léegi nag ingrédients yi waw yi moom la ñuy jaxase ñoom ñëpp bañ jaxasoo incha allah aywa mu ngoog gis ngeen nii dry ingredients yëpp jaxase nañ ko muy semolina bi ak euh, tuuti sel ak farine normal bi léegi zeste citron yi lañuy jël am euh, sorry euh, zeste orange bi jël suñu diw ñor diw ñor bi mooy ghee butter ghee butter clarified butter am na ñu koy woowee noonu ku mu neex tam mën nga jël beurre à la place gis ngeen ko nii voilà gis ngeen ko nii macha allah. jël nen bi ne ci réel mu ñew fekk ci momit yu bolé yépp toj tojam ni bu mu tiit ba jaxasso ñu soog jël méw mi momit diko ci def par ndank di jaxassé bañ am pat bu dëgër bo xamantene dina mëna def comme ndànk mu baña nekk comme patu crêpe euh, bismillah gis ngeen ba euh, nu mu ci diw ñor bi ak nen bi mom lañu jël jël sa ñaari loxo diko frotter bomb ko ba nga am li suko defen, defee nga dal di ñew ndank jël sa mew bi nga ki nugulon nuggaloon rek woom milk bi ñew nak door jaxase bi ay bismillah gis ngeen ni madam Fall dugg ci na ci jamb gi <laughs> ma la ko wax madam Fall borom ceeb ceebu jën bu neex bi sha allah dugg ci na ci jamb gi. wala legi xaar ñu won len naka la pat bi war dem gis ngeen pat bi ni lay def nga xamne mën nañ ko pat ni wala legi continuer jamb jambel ba ci kanam tuuti. ma ne ko ci jàmbum patu beñe ak patu fufoo yem <laughs> sa énergie yëpp ah, bismillah mbokk yi gis ngeen nii suñu sirop de sucre baa ngi formé dañ koy jël citron nal ko ci am très bien torox tol bu leen fàtte pat bale amul dara ci sucre wala kii sax laa jël nekk ci réel caf ko géej yëpp des ci voilà donc ñaari limon laa ci nal mu forox léegi damay ñëw am naa fi tuuti eau de rose madame baal ma rek ubbil ma boutique bi eau de rose bële. Mm-hmm. mi ngi nii noonu mi ngi nii sama wet nii ci côté loxo bi téye kii bi caméra bi. ku mu neex nga def ci sa eau de fleur d'oranger mais man eau de rose laa ci def voilà mi ngi nii gis ngeen nii suñu eau de rose bi comme moom it dafa concentré te neex ma nga ñaari toq toqal yooyu rek doy na ci. ou eau de rose ni may def macha allah kooku moom mën na dellu fi mu ne woon non non non xale fii def euh, kiiwu pâtisserie ah, bismillah mbokk yi gis ngeen ni suñu sirop de sucre bi léegi maa ngi ñëw nii fay ko bàyyi ko mu dégg jàmm fa mu ne gis nga suñu pat bi mu ngi ni pare na raay naa ci tuuti ooyal rek tuuti diwlin laaj ci raay nii dañ koy bàyyi mu reposer benn une heure deux heures de temps balaa ñuy jël suñu layu bi ndey teel ma layu bi ma won leen benn mi ngi noonu kii bi euh, passoire bi nga teg ko nii noonu voilà gis ngeen ko ni téye ma fii comme benn loxo bi laa yor teg ci suuf nga téye ko voilà gis ngeen nii nii lañ ko naan nii rek daw ak moom bu ñu paree ne ko ni mu markeel ñu ñu saaf waaye yéen a ngi fàttaliku beñe layu yi waay mère Diop yi mu ci daan defar kenn mënu ko nettali macha allah beñe layu rek la mère Diop daan def bu paree defar sirop de sucre bi comme nee ma ko defee mais moom eau de fleur d'oranger la ci doon laal limon ko ba mu far ci biir gis ko nii tek suñu diwlin may ko saaf bu gaaw bu paree nag ñu xooj ko ci suñu de sucre bi léegi ñun xam nga noo def ñu indi suñuy bagage si bopp ñu nit ñambaas ko ci <laughs> gis ngeen yenn yi dañ koy xooj suñu de sucre à la mer jo beneen bi nag ñu def ko à la saveur planétaire xam ngeen boo ban la buñ ko xoojee ci sucre bi ba pare ñu ngi fekk pëndaxi koko bu sew rucc bu ñu paree dañ ko naan réel wiccax ko ci koko bi ba yàlla defal ko jàmm ñu daal di génne tegee ne le <laughs> day dem de ayo bismillah tout à l'heure bismillah mbokk yi suñu pat noppaliku na une heure et demie de temps macha allah léegi gis ngeen nii yii yëpp moom lañ ko léegi layu bi lañ leen indil tam gis nga layu bi defe naa lii ñun ñëpp xamoon nañ ko Sénégal téye nga da nga naan nii rek mu dem maa ngi jéggalu bëgg di liggéey ak di kifinee beneen loxo bi gis nga boo paree rek nga ni mu dem nga daal di ñëw ndànk teg bi layu bi la yee passoir bi la donc li ci waay am rek sinon tam ku am sa fourchette mën nga jël sa fourchette it defee ko comme niñ ko defee rek dëngal ko rek daal di kifin rek samp say baram di pus muy dem gis nga ko ni ma ngoog gis ngeen ko ni machallah <laughs> ki moy bañe a layu école Clémenceau la may sama domi ndey ñom Mali ndjay Mali ñom Fat si <laughs> ñoom Fatmata Leyla Sène ñoom Maymouna Minisha nyom Aminata Fall ak ñom Abibatu Fall machallah sama mbokk yi waar yi onze yi oh la la oh la la oh la la machallah ay ñom Mariam Ousmane sar ñoom tamit waa waa côté marché Cheikh ma <laughs> oh là là macha allah waay mu ngi nii de am na nag ndeysaan benn mbokk bu baax ne ma yow da war a ngéntewaat saveur planétaire daal di ko tuddee ñu meer Diop ma ne ko wallaay xalaatuma woon loolu waaye jox nga ma loo xam ne tere nga maa nelaw fi mu ne nii de bala ma am jàmm dama ko def de bala ma am jàmm saveur planétaire da ngeen di tourner rek seen ñu bindee ko <laughs> waañu mère Diop ne xam naa ne yéen ñëpp di ma ko nangul macha allah. mang koy ñaanal yalla fa la mëna yalla nako gënal fi mu joggé diko ñaanal ñëpp sha allah gis ngeen ko ni mang ngok gis ngeen ko ni voilà. mais bi nak suñu bi inshallah allah dama ci fas yéenee yàkkal sa mag bu jigen ñu naan ko xadi kan madame ma sha allah fas yéene ci yàkkal koddu kan suñu mag bu jigen ñun ñëpp mom neem yi ngeen di gis ak salade chinoise yi ngeen gis may koddu kan momako jangal chef koddu macha allah madame Silla. moom tamit bu neexee yàlla am na soupe chinoise ku ma ko doon laaj du yu neex la ci daan defar kanaar lakk yi ngeen doon gis ak yooyu yëpp ci suñu mag boobu la ñu ko jàngee incha allah dinañ leen indil soupe chinoise ñun ba léegi ñu ngi ci hiver bi sedd bi soupe yooyu rek kay baax ci ñun nag teg rek mu wàcc dóor ci champignon yi <laughs> champignon noir ba mu doon war bu yebul génn de bu génnul daal daf ma laajul daf ma laajul salaat chinoise ba dana génn <laughs> ay bismillah mbokk yi mangoog gis ngeen nii dañuy ñëw nag saaf suñuy beñe gis ngeen ko nii du ñu bàyyi diwlin bi muy saaf trop trop te ak nen bi tamit dafay fuur donc euh, xam naa ñaar ñetti batch yu njëkk yi euh, doo doo leen gis fuurit noonu mais euh, après yi ci des yet dafay fuur bu dee même diwlin bi ngay utiliser voilà gis ngeen ko nii dañuy ñëw sóob ko ba mu del bu ñu paree nag teg ko ne leen mu siit gis ngeen ni fi ñu koy séppee gi nii <laughs> bu siitee ba pare incha allah ñu daal di jël suñu sirop de sucre bee daal di ko ci xocc bàyyi ko foofu mu dégg jàmm yoon ay bismillah mbokk yi gis ngeen ko nii macha allah am nañ ci saaf bu rafet macha allah gis ngeen eh, saafukaay bi mën na jël lu bari léegi gis ngeen li ñuy def suñu mbaal mi la ñuy jël rek daal dina yor yenn yi nga xamante ne jàpp nañ forme ba pare voilà gis ngeen ko nii. ko defé dañ koy sitel ni buñ paré tek ko fële mu gëna sit paré nak ñew ne ko ne ko rel ci suñu sirop de sucre bële ba ci kanam inshallah allah euh, mbokk yi te gis ngeen li gëna neexati ci suñu bay suñu beñe yi du nan diwli voilà diw ñor bi lañ ko tooyalee na le ku bëggul diw ñor mën na ci mën na ko defee comme ñu ko waxé won légui nak mom xamna dañ koy tuddé tandarma rek incha nañ ko tuddee tàndarma kaw sara gis nga ko ni du naan dara ci diwlin bu ñu paree ba trempé ko ci sirop de sucre bi nga gis après ci lay gën a woyo fati sax nag voilà génn leen di leen fàttali rek ne bu leen ko def feu bu mag a mag a mag ndax mu mën a ñor comme il faut donte ci biir euh, fi ñu doon jam baaraam yi bu euh, du noonu lay def day def comme espèce su pax noonu xaar leen wan leen li ma leen di voilà gis ngeen li ni marque baram bi ni moy def ni comme espèce pax yi muy def ni gis ngeen ko ni mais terewul ma ay bisu lu mbokk yi gis ngeen nii newoon naa leen yëf yi koy four nak li ni ñaari saaf la def ni li ñu defal defar tey bariwul euh, ñaari saaf yi gis ngeen ni mu fouré mais bu doon dañuy saaf lu bari ni ñuy gëna continuer di saaf rek muy gëna four légui li ñuy def euh, dañuy sépp li tamit inshallah da nga ñuy jëlat suñu mbal mi voilà dal di yem yëpp ki mom ci noiru beñe la xamna ko ko am moom macha allah efficace na ben efficace na ben façon efficace bo xamne ne allah. ay bismillah mbokk yi gis ngeen ni suñu sirop de sucre baa ni yi ngeen di seen ay orange zest la euh, ku mu ci neexit nga def ki euh, bu euh, citron bi tamit bo ci am citron bu jaune bek bu ki yeb lime or lemon wala nena ko lemon wala lemon bu la ci neex rek ak bëri arabal nako nak nag len lemon gis ngeen ni bañay paré na bismillah gis ngeen ni ni ñukoy jël ni suukar si yëpp la ñuy jël dégg nga maam wicci wiccel ko ci ba mu tere bi moom ni si euh, suñu siro bi dama rek mu gën a gis ngeen ni mu xoojoo nii su ko defee nag ñu ko téye naan yi di ko yëngal ndànk rek ñu maase di tibbi ci suuf di teg ci kaw si maase euh, siro bi voilà ba yépp massé da ngay dem ba dootoo gisati ñeex mi ngeen di senni ci suuf ñeexu caramel bi da ngeen dem ba doo leen seen ci dara yépp beñe bi daf koy naan macha allah waaw boobu de moom nee na rëcc na noonu ba wat cey beñe bi moom it bari na affaire daal laaj xam léegi gis ngeen fii nii dama fi wàññi nii tuuti ci beñe bi xam ngeen lu tax ma def lii nii incha allah voilà donc li ma doon wax gis ngeen fi dama fi wàññi tuuti gis ngeen li ngeen di gis nii euh, sirop abricot la macha allah gis ngeen ko nii dafa nectar moom it dafa neex ñi nga xam ne bëgguñ sirop de sucre bi ne la directement mën nañ jël ni seen sirop abricot bi nii laal ko ci léegi nag bii nii may abricot nii xam naa nar naa foroxta neex te macha allah léegi moom it su ma ñëwee ba jaxase ko comme ni may jaxasee lële li may def mooy incha allah damay jël koko euh, bi daal di ko ci capp moom it laal ko ci waaw bii moom koko bi laa cee def kii moom incha allah ni lañ koy bàyyi muy jàpp forme bi am abricot bi dina foroxta dana neex moom it ku ci nekk noo ko bëggee rek ñoo nga xamante nekk bëgguñu def nii sirop de sucre bi bu la neexee ñu jël seen euh, euh, nu mu tudd icing sugar mooy euh, sucre bu kii bi bu mokk bi ñoom it wis ko ci ku ci nekk num la neexee ku am sa tuuti pëndaxu meew nido bu la neexee nga bàcc bàccal ko ci rek noo ko bëggee noo ko bëggee da ngay amusé wu ak affaire def lu la neex créer ci say yëfi bopp suñu tàndarma kaw sara gi daal la ngi nii man bii nag en général bu ma ko defaraan ba pare damay jël tuuti ci xaw bata euh, xabatu sawda bi moom mooy euh, black seed bi moom it bàcc bàccal ko ci xam naa dinaa defar tuuti bu ma bàcc bàccal macha allah xam ngeen ne xawbatu sawda macha allah yàlla def ko barkeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na xadis bu ñu ci jox di wax ne dee rek la dul faj ci doomu aadama moom xabatu sawda dinañ ci génne tuuti yi defar euh, teg ci wet gi voilà gis ngeen nii lañ koy xel di toppee rek ba yëf yi naan ko ba mu trempé wu ci ñeex mi bien boobu ba japp forme ñu defar suñu té bu tang mbaa café bu tang dégg nga maam boole ak moom yàlla bu muy weeru koor na ay bismillah mbokk yi gis ngeen ni ñi suñu ma kaw sara gi suru de sucre biñ ci téy woon di ci wis ni machallah gis ngeen daanaka presque li ci des bareetu naan na sirop bi yépp machallah lan fàtte ne pat bi amul dara ci sucre defuñu ci dara dara ci suukar du tout du tout du tout léegi recette originale mère Diop bi moom daanu ci woon def semolina bi du ci def semolina bi euh, farine normal rek la ko doon defee waaw tooyal koog diw ñor beeg nen bi comme ni ñu leen ko wanee bu paree sirop de sucre mu ko ba mu forox tool ba pare xoos ci euh, orange orange bi zeste yi ak euh, zeste citron bi mu ci kii woon noonu mais ñun zeste orange bi rek la ñu fi laal nii gis ngeen ko nii léegi li may def gis ngeen bii mooy bi ñu defoon siro abricot bi gis ngeen ko nii moom tamit macha allah léegi gis ngeen bu sirop abricot bi nii fii sama koko laa fi yor pënd ko koko damay ñëw rek raatale ko ci nii tuuti rek voilà gis ngeen ko nii ma ngoog macha allah mu am maanaa ba dee ñu ñëw installé fii gis ngeen ko mu yànji ba dee la ku mu neexit bu fekkente ne bëggoo siro de sucre bi. defee ko nu mu la neexee rek comme ni ma ko waxee woon ci vidéo bi ku mu neex yaa xool nu mu la neexee rek nga defee ko ko mu ngi nii lii dégg nga maam incha allah yan nañu yàlla may ñu fekk koor gi te tal ko lii xam nga ne heure ndogu moos <laughs> nga wettale ko sa table macha allah door sa kafe bu toog ñu ko xale yi waxee bu toog <coughs> xewal rek ngay dégg gis ngeen ko nii ku mu neex nga defee ko nii tamit ku mu neex lii suñu pëndaxu meew la xaaral ñu ñëw ci pëndaxu ku mu neex gis ngeen ni suñu meew nidoo la nga ñëw mëqal ko ci meew mi ba muy xoole benn place <laughs> waaw mën na ko ci mëqal ko ci meew mi ba mu ne leen màngoo ko gis ngeen ko nii moom it ñu ñëw tegee ko nii voilà ba pare defar sa tee bu tàng ñu ngi fi ak suñu tee euh, citronnelle ak euh, thé vert moom la ñu boole incha allah moom laa ko fas yéene booleel nii tey wàccee ko mbir mi gis ngeen ko ni suñu pëndaxu meew bi ayoo ma ngoog léegi suñu bii dañu koy ñëw rek gis ngeen ko ni teg ko nii voilà bu ko defee ñu daal di ñëw fii ndànk jël suñu xabata bi mbicc mbiccal ko ci ma ngoog mooy black seed bi mbicc mbiccal ko ci ba mu réglé voilà gis ngeen ko nii macha bii coco la shredded coconut bii black seed mooy xabata sawda bi bi gis ngeen ko mooy suñu pëndaxu meew euh, lait en poudre euh, mbokk yi bon nag li lañ leen indiloon tey ci saver planetaire macha allah muy euh, suñu beñe tàndarma kaw sara yi ngeen xam ne que ci layu bi lañ ko xoosee macha allah boole ci suñuy tuuti feem boole kook suñu thé vert euh, mi ngi nii macha allah ak euh, lemon grass mooy euh, citronnelle bi neex bu bëgg a dee moom it suukaruñ ko defuñ ko dara donc bii gis ngeen koko bi lañ ci bàcc bàccal noonu bii xabata sowda bi lañ ci bàcc bàccal moom it fee ñu jël yëfi rek dégg nga maam xalangul ko ci biir pëndax meew bi donc nu mu la neexee rek noonu nga koy defee voilà di wax nag vidéo complète yi incha allah ñi ngi ci youtube bi di leen ñaan ngeen partager bagage yi <laughs> comme nous, on koy tous les bagages partage tous les bagages ayo bismillah couvrir wa rahmatullah